Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais tout d'abord m'adresser à nos chers militants et militantes de berno Bokeyakar pour leur dire de garder le sourire, de garder l'engagement, parce qu'évidemment, la liste de berno Bokyaka va se mobiliser pour gagner les élections. cela ne s'ouvre d'aucun doute. D'aucun doute. Nous takk takk laase yi yeew musóor yi takk sër yi te xam ne bëre day am te xam béré wowo xamnañ né Benno Bokk Yaakaar moy daan loolu amul benn yaram Mesdames, Messieurs les journalistes, comme vous le savez, le Sénégal en conformité avec sa tradition démocratique, déroule le processus électoral tel que prescrit par la loi. Nous sommes dans la phase de vérification des candidatures. Et je voudrais souligner l'exemplarité de notre démocratie de ce point de vue-là. Que toutes les listes puissent se vérifier les unes les autres et puissent évidemment porter leurs observations à ceux qui décident de leur validation. Ça veut dire qu'il est important qu'on puisse respecter la loi, il est important qu'on puisse respecter ce processus démocratique. D'ailleurs, nous allions faire un point de presse puisque nous avons effectivement notre mandataire qui a également procédé aux vérifications des listes concurrentes, je ne dirais même pas des listes adverses, mais des listes concurrentes. Parce que dans une démocratie, c'est de la concurrence. Et je voudrais, euh, sans plus tarder, donner la parole à notre euh, mandataire, euh, Monsieur M. Benoît Sambou, pour aussi nous lire les observations qu'il a eu à faire avant que je ne conclue. dañoo nekk ci période bi nga xam ne commission bi nga xam ne moom mooy jël liste candidature yi nekk fële ca DGE dafay woo mandataire bu ne mandataire liste bu ne pour wax ko la mu gis ci ay liste bu dee am na ay problème ci liste bi mu wax la ko bu dee liste bi jaarul yoon mu wax la ko bu dee am na ay problème ci këyit yi nga joxe maanaam carte d'identité boo xam ne amul légalisation walla euh, extrait boo xam ne euh, amul euh, dafa périmé walla nu mu tati casier judiciaire bu am problème ñu wax la ko la nga wa yoon may nga remplacer ko nga remplacer ko la yoon mayul nag ñu invalider say tey nag ma dem wuyu ji ci convocation bi nga xam ne moom la ma commission bi yónnee fële ca DGE ma dem tamit wan lan leen li nga xam ne notification yi nga xam ne moom lañ ñu defaraloon ma teg seen loxo kayit yi nga xam ne moom lañ ma laajoon ma indi ci ay tontu ba ma paree yoon nag may ñu ñu mën a saytu list ñi nga xam ne ñooy suñuy concurrent comme ba ma egsee mandataire yi Yewwi Askan Wi moo fa nekkoon ay listam moo fa nekkoon ma jël ay listam comme

mu déposer pour bitim réew ci 28 listes yi nga xamné mom les la déposé fi ci Sénégal ma gis né respecté wuñu parité bi ci 15 départements may parité dañ le def pour que ay équilibre mën am ci institution yi conseil municipal muy ci conseil départemental ou ci assemblée nationale. mu fàttali nii dañ koo def pour que benn ndaw bu dee ku góor la bu dee dañ koo fal ab dog-dog dab ko bu fa jógee góor toftal ko mooy remplacé ko bu dee ab jigéen la bu dee dog-dog daf kaa dab ba mu jógee fa ab jigéen remplacé ko pour ñu mën a maintenir équilibre bi nga xam ne moo am ci institution la ma gis nag ñoom neneen lañ ko doxalee comme nañ ko defee ca ndakaaru rek te loolu ñoom ñoo ko génne ah ñun man tey laa doogee gis seen liste ndakaaru ñoom ñoo jël seen liste ndakaaru fësal ko donc moo tax ñun waxuñu ci woon xaw lu may wax seen liste en tant que mandataire parce que tegagu tegaguma ci woon bët tey laa ci doogay teg bët donc ñoom ñoo jëloon responsabilité génne ko ma gis ne département de Mbour département de Thiès département Goudomp département Rufisque département Bambey département Kaolack département Kaffrine département Fatick département Dagana département Koungheul département Vélingara département Matam département Kolda département Louga ak département Dakar bi nga xam ne loolu moom yëg ngeen ko dañoo bindee seen liste lu mu leen neex may joxe rek benn exemple boo jëlee guddoom dañooy bind dañooy def titulaire benn góor ci ci topp beneen titulaire bi benn jigéen ñu ñëw ci suppléant yi jiital jigéen taftal ci góor loolu lu muy wund mooy bu musiba amee bu dog-dog amee que góor ka góor du ko mën remplacer ku jigéen ka que jigéen ka jigéen du ko mën remplacer loolu nag mooy ab garaawaale ci li nga xam ne moom la ñuy xaar ci parité ak ñu ñuy organiser parité ñoom daal dañuy xool lu leen neex rek bind fii bu leen neexee ñu bindee ko nii feneen fi bu leen neexee ñu bindeen ko nu mu leen neexee